accident ak embouteillage. ce matin rek j' étais témoin d'un accident bi may ñëw di liggéey si benn oto bu nekkoon de l' autre côté sur la VDN d'un seul coup vu l' action oto bi dafa def nii ñëw dal ci suuf si mooy suuf bi séparé ñaari tali. non mais c' était c' était c' était c' était c' xam nga bu ñu nekkee ci dëkk boo xamante ne parce que Sénégal li li ci doy waar mooy. bu ñu ko xoolee ci wàllum bind ci wàllum taxe yuy organiser secteur yi on est les meilleurs au monde. Hmm. foo mën dem ci àdduna bi. da nga fay gis ay bind yoo xam ne en tout le mais quand il s'agit de l'application c'est là que ça pose problème xamante ne li tax sécurité amul ci tali bi mooy yow en tant que conducteur yow mën ngaa def lu la neex ci tali bi njombe lu la neex ci tali bi wóor na leen di nga fanaan sa kër wóor na leen sa permis da koy garder ak yow parce que conducteur bu jub amul ci àdduna xam nga lan moom ci àdduna un mm. conducteur qui se sent surveillé dama ci dëkk tubaab bi ñoo ñu gën a dëng foofu dañuy naan bay lang jël seen volant dañuy tox ba duñ mën taxaw jël volant mm. mais boo ko defee benn yoon li ñuy wax il n'est pas interdit de jouer il est interdit de se faire prendre boo ko defee mille fois bu ñu jàppee benn yoon mooy dootoo amati sax possibilité def ko dootuloo amati possibilité def ko alors que Sénégal fii mën a permis à point yi c'était une bonne idée wala. mais pour man mise en place bi dafay poser problème présentement fi ñu fi ñu toll nii parce que on est dans un espace communautaire tey li daal France mën nañu daal man tey sama euh, carte d'identité su ma demee moom Mali dafay valable parce que carte d'identité CEDEAO la si je passe le permis malien là-bas su ma ñëwee Sénégal dafay valable je peux être sénégalais aller Mali passer mon permis ñëw fii dawal Mali amul permis à point donc loolu ci solution na mais pour man balaa ñuy def. la gestion de la mobilité urbaine doit être repensée au Sénégal ay taxaw ci intersection yor sa sifflet naan kii ay jaaral ni yooyu dafa xewi la mobilité urbaine c'est une science maintenant ah, foofu dem ci Sénégal la catastrophe mais feneen fañ ko réglé defuñu loolu te pourtant c'est la catastrophe cest dire léegi la mobilité urbaine policiers yi ak gendarme yoon non dafa dafa dafa leen dafa dépassé en fait xam nga tey jii bu ñu toogoon fi yor ay 33 10 mais daf ñuy raw parce que c'était des téléphones de 2002 ñu ngi yor ay smartphone léegi mobilité urbaine dafa toll foo xamante ne maintenant léegi dañ ko rattaché ak la nouvelle technologie c'est-à-dire léegi au lieu ngay teg benn nit fenn mu bëgg faa taxaw du xam la xew feneen embouteillage bi takar naase mu yor sifflet naan kii jaar ngi di à la limite même c'est eux qui même créent problème xool leen li xew au rond-point EMG ni ñu baaree benn tali bi di jaarloo nit ñi en sens interdit ba teg fa ay barrière police est-ce que xam nga ne guddi bu policiers yi wàccee yow foofu ngay jaar bés boo fa jaar ba def accident assurance dafay dégager responsabilité parce que vous avez une circulation en sens interdit hmm. sans injonction d'agent loolu nit ñi bàyyi ñu ci xel est-ce police boobu noonu dafa am valeur juridique bu policier bi am amu ko moo tax ma ne dañ ko war a repenser gis nga bi ñuy teg agence nationale de sécurité routière bu Sénégal bii bi ñu koy nas 2017 man woon ca forum xam nga la ñu waxoon que ne léegi structure bii di gérer mobilité urbaine moo xam police moo xam gendarmerie wala muy ministère. Mhm. dafa war am ay éléments yoo xam ne dañuy am ay formations yu spécifiques yoo xam ne c'est en rapport avec la sécurité routière et mobilité. Mhm. mais tey nga jël policier bu génn brigade ñaata policier ñoo lay arrêté di wax yow mu leneen kii xamul sax code de ku xamul code de la la mën a contrôler kuy jàll. kuy jaaxal na ma a gérer mobilité urbaine parce tey mënuloo def mobilité urbaine te liggéeyoo collectivité territoriale yi parce que trottoir bi nit ñi war a jaar ña ngi fa teg ay table nit ki war a jàll si trottoir bi wàcc na ci tali bi oto bi war a daw ma ngi moytu bu ko moytoo ma ngi empiété ci beneen voie bi ñi nga xam ne ñoo war a gérer mbalit seetaan nañ ba suuf si nangu na genn wàllu tali bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen y' a pas mal de choses yoo xamante ne war nañ koo mën a def. ak ñi stationné ci tali bi parce que désorganisation bi nekk secteur bi. c'est-à-dire c'est-à-dire mënoo ko xam tant que gisoo beneen dëkk boo xamante ne man li ma jaaxal stationnement bi ku la neex fu la neex ngay stationné. parce que raar ngay ñëw gis. Euh, mairie bi ñëw def liggéeyam sabo la. parce que amul man man une fois sabo nañ ma au niveau de la Solida mais dama attaqué décision bi mu ko dindilu parce que tout simplement pour man am na loo xamante ne sax à la limite c'est insultant pour les usagers gis nga tey boo bëggee def gestion de mobilité urbaine dafa am lu ko précédé da nga war a teg plan de mobilité boo xamante ne c'est accompagné vraiment d'un programme de stationnement ñu xam ne fii war nañ fee taxaw fii waruñu fee taxaw fii ku fi taxaw lii mooy daan fii ku fi taxaw lii mooy daan mais Dakar ban mairie moom moo fi am fourrière fourrière amu fi saboo yooyu ñu lay takkal noonu amul benn valeur juridique yow boo neexee doole rek la ñuy indi seen sabo parce que bu ñu lay sabo boo gaaree di dugg te gis nga gis nga <laughs> ko defee dagan foo xamante ne amul panneau d'arrêt de stationnement interdit amul marquage au sol bu ko interdire et exposer les autres usagers au danger soo fa taxawee kenn warul la sabote fii looloo am da nga gis nga taxaw fenn rek taxaw <laughs>